Père Demba Wale Diop ah jiite association des retraités euh, orphelins veuves du Sénégal mm. léegi ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw salaamaaleykum di d'abord rafetlu invitation bi ndax du bii rek du guléet mos ngeen ma fi invité télé bi suñu tele la di gërëm bu baax nag vraiment euh, Omar Gueye Sa Ndiogou ak yéen ñi nga xamante ne yenn a ànd na ñoom di jiital ci nuyu di jiital ci ngërëm ji nag vraiment suñu doom le représentant des vieillards Théodore Semadou. banlieue bi point de presse bu ñu def moom vraiment boo ko woowee rek il est disponible. di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla fal cat. c' est un gars qui est courageux la bu comprendre affaire retraité yi. di ñaan rek lu ñu fi wax mu nekk jàmm. di ziare aussi sunu mbokk catholique yi nga xam ne dañu dugg ci seen koor. di ñaan lépp lu ñaan ci koor gi di jàmm yàlla na ko yàlla def ci réew mi. di leen ziare ñoom ñëpp di leen wax alléluia. di leen remercier koor gi ñuy koor yàlla na ko yàlla antu lu ñu ñaan ci seen église ci jàngu yàlla na ko yàlla def. Mhm. ndax Sénégal soxla na jàmm. Mhm. waaw ci en attendant ma. yama di foofu ba ngeen di dugg ci le fond di problème. Mhm. <coughs> toutes les questions sont permises. père ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la gërëm euh, di la gërëm yow tamit ci teewaay bi ah, ak euh, Kër Massar ak fii effort yi nga def pour ñëw. merci nekk ci yitte yitte retraité rek. jaamu yàlla la. mais avant de commencer tamit di fàttali ne lew na le 4 la. waaw euh, ñu ngi koy waajal di nuyu sunu xarit sunu sëriñ sëñ Sidi Taïbu Niass. Taïbu Niass ah, waaw waaw xam nga yàllaa ñu boole ay Sidi la ñu boolee la <laughs> yàlla moo xam li muy def. Mm-hmm. doon ku baax dëkkee ca Géejawaay ah doon sama kilifa ku baax. Mm-hmm. léegi per sànq da nga ne euh, Théodore nga ni yitte gi mu jox nii. léegi yéen bu ma gisee yéen ngeen di xeex des fois yërmande da ciy dugg loolu. parce que mm-hmm. xeex bi dafa mel ni da ngeen cee wéet. parce que tey jii boo demee en France. waaw. débat bi fa gën a rëy coow retraité la. très bien ba tax yëngal na réew mi bu baax a bien mais fii yéen depuis des années yéen ngi xeex mais dafa mel ci xeex bi ci yéen rek la yem wéetaay boobu ngeen wéet ci xeex bi lan la. waaw wéetaay bi xam naa ne mën nañu ne lu yàlla dogal la ak ji ak jëfi jamono. Hmm. ndax ci vous rappelez bien kii mos a ma lu ka euh, Sa Ndiogou bi mos na laaj lu mel noonu. Hmm. bi ma fi ñëwee daaw jéeg daawati jéeg yaakaar naa. waaw waaw c' est vrai que wéet nañ ci. Hmm. waaye léegi bu soobee yàlla dootuñu wéet. lu tax ndax mel na ne dana am intercoalition des associations te man boog loolu lay ñaan yàlla di lancer un appel à toutes les associations du Sénégal ñun ñëpp ñu nekk benn parce que ci la combat bi gën a neexee. Mm-hmm. ku ñëw nag bu la neexee nga jiitu man moom ku jiitu rek maa ngi sa gannaaw mm-hmm. euh, wax dëgg yàlla loolu daal loolu mooy sunu mébét. pour yow seen ñàkk ànd moo indi. gën moo indi lii parce que bu ñu nekkoon benn. Mm-hmm. yaakaar naa ne du am ñaari weer te la wuñ suñu problème. bu ñu benn. ñaari weer la may parce que ñii fi mën naa ne pay pay am tey soixante dix ans soixante cinq ans. mooy gone de de euh, mille neuf cent soixante quatorze xale ya toppoon Ablaye Wade naa ko soppi. tey ñoo am soixante cinq soixante dix ans soixante quinze ans. booy fekk mille neuf cent soixante quinze ak léegi yàgg na. kon yaakaar naa ne lu ñu mënta dindi danañ ko lu ñu bëgg a dindi danañ ko dindi. kon di ñaan yàlla rek toutes les forces vives ñi nga xamante ne ñoo bokk ci association yi association yëpp de grâce nañu euh, mm. bu ñu nekkulee benn du baax ban yitte la leen état jox état bi ngeen di jàmbat seeni problème bon état bi ñuy jàmbat suñuy problème ah wax dëgg yàlla dafa mel ni daal dégguñ ñu wala bu ñu ko déggee aussi jotaguñu le message qu'il faut hmm. ñun nag du ñu jóg ci lancer message ndax booy xool yëngu yëngal nañ fi en deux mille vingt def nañ fi marche le 9 octobre place Obélix. Hmm. mu fees dell ak nit Arbos moo ko moom moo ko organisé. le le le le 9 octobre boobu waa Tamba même jour ci association lañ bokk def nañ ko. 22 novembre 2020 Thiawane def nañ fa marche. suñu association. kon ñun fa ñu ne woon ñu ngi fa ba léegi. te association bi léegi mu am presque juróomi at parce que 2017 lañ ko créé. boobaak léegi nag ñu ngi xeex kuñ ci fekk see rek ñu ànd ak yow ku ñëw tey ku ñëw suba ku ñëw gannaaw suba benn nga ci arbos arbos noonu la tëddee. donc ñun foofu la ñu nekk. ñun li ñu xeex mooy. déjà yéen ñi xamante ne ay journalistes yéen gis ngeen ne fan yi passé eh, payu bi coono la hmm. ay weer a ngi ne ay at sax laa wax toujours amul benn weer bu ñu dul jël un problème teg ko ci kaw retraités yi hmm. amul benn weer boo xamante ne ñun retraités jànkonte wuñu ak avec des difficultés hmm. kon loolu muy loo xamante ne warut a am au vingt au au au vingt et unième siècle. deux mille vingt trois la nekk ah. dañ leen ñu fayul. wala bala ñu ñuy fay ñu topp ci daw ba fi ma wax yoon tey la le vingt huit tey la première. tey la première am na ñu jotagul seen xaalis. te ci weer bële la leen waroon a fay weer bële lañ ko waroon fay. yàlla xam na ko wallaahi li may wax nii ñu ngi may dégg ba tey la premier laa la wax de man sax xaw moon loolu tey la premier. Mhm. am na ñu jotagul seen pension. Hmm? ñu ngi leen naan demal fii demal fële demal fële. lu indi loolu. loolu li ko indi mooy te une euh, question bi ma laaj naa ci sawar li ko indi moon ci bu ngeen fàttaliku en deux mille dix ci la ñu lancé benn projet bu ñuy wax projet ndam li voilà si nag ña mu àndal. waaw waa IPRES. projet ndam loolu ñu daal di koy ngénte tuddal ko seen boppu ndam li. jël média bi yëpp Walfadjri ñoom Théodore ñoom ñëpp taxaw ne c'est fini la souffrance des retraités. ku bëgg a faju di faju ku feebar danañ la faj ah wax dëgg yàlla euh, carte de bienfaiteur banque boo dem ñu fay la. ñu budgétiser ko en budget de six milliards de francs CFA. Mhm. malheureusement. ba fi mooy wax yow ni genn wàllu retraité jotuñu seen carte benn ñaar ñett mooy carte yi lee mu jeex ñetti at la trois ans de validité la deux mille vingt trois bi lay jeex ce qui veut dire que opération boobu c'est une opération à coût de milliards zéro mooy wax ñu may dégg ci bi kenn du ko weddi bon bi ñu koy ngéntee aussi bi ñu defee loolu ba pare waa waa waa IPRES ci boppam muy le syndicat des travailleurs de l'IPRES CETI sas la synthèse génn nañ ci télévision beeg rajo beeg presse bi ne système d'information boobu affaire carte carte biométrique ak fusion caisse sécurité sociale IPRES 6 milliards la woon yóbbu nañ ko 20 milliards 6 milliards ñu yóbbu ko 20 milliards. Mhm. ba fi mooy waxe yow nii paa yi mënuñu jox seen carte biométrique ñu fay seen xaalis ñu leen naan dem leen ngeen pointé ba. léegi mhm. ça pose un problème. léegi ana 20 milliards rek. xëccal micro kenn xamul. xaalis boobu kenn xamul xaalis boobu mm-hmm. nan la tëddee kenn am benn kuloom nga noo wax ne cette opération la ñii la demee mm-hmm. foofu lañ toll léegi euh, IPRES lan moo ci wàllam IPRES mais ñoom ñooy gérer retraités yi gérer seen yoon nekku ci c'est des innocents retraités seen yoon nekku ci ñun fi ñu toll nii ba xamul dara mais faj bi rek coono la mm-hmm. amul benn retraité buy feebar dem centre médico social ñu faj la bañ buy metti ñetti weer lañ lay jox rendez-vous ñaata centres médico sociaux ñoo nekk dans ce pays ñaata la IPRES di génne par année euh, ci seen seen seen budget 4 milliards de francs ci li ñu wax paracétamol dox ba fekk paracétamol boo demee ci euh, centre médico sociale yi garab amu fa mais loolu mooy suñu problème te ñun ci réew mi lañ bokk IPRES ñun ñoo ko moom IPRES ça nous appartient ña fa nekk ñun ñoo leen di fay ñun ñooy les employeurs loolu nag retraités yi foo ci def ko seen bopp sénégalais yi def ko seen bopp la nekk IPRES ñun ñoo ko moom. yéen a ngi cotiser la fa newoon ñoo ko fa def yéen a ñuy doole di ñu cotiser suba encore une fois yéen da ngeen di ñëw yàggatul la ngeen ñëw. waaw léegi man góor gi. waaw euh, li ngay wax ni yaa ngi ñuy napp pour ñu gaaw dem bokk ci xeex bi lu ko mooy musibaam. parce que yow dafa mel ni fi mu toll nii allié ngay wut c'est que xam nga problème mu problème mu retraité yi waaw. man dama jàpp ni euh, xam bu doon réew mu normal la moom yéen wax dëgg fa yàlla waxtu ngeen war a noppalu dañ leen war a bàyyi ngeen noppalu mais warul leen a nekkaat ay nit ñoo xamante ni da ngeen di jógaat di ñaxtu pour li ngeen doon cotiser ngeen ciy jot loolu jaaduwut parce que waxtu wi bu fekkee ne nit ki dafa liggéey bañ ne ko ah yow kat réew mi macha allah liggéey nga li nga war a liggéey yëpp demal dallu kon la mu doon cotiser war na koo jot te def benn yëngu-yëngal loolu pour man échec la boo xamante ni bii kii bi loolu mais xam nga réew mi boo seetee même ñi nga xam ne ñi ngi liggéey tey ñii liggéey tey góor gi am na ñoo xamante ni bi bu ñu bëggee sax ñu taxaw ci seeni mbir dañuy dakkal liggéey bi te pour ñu mën a taxaw ci seen mbir maanaam bu fekkee ne ñi ngi ñaxtu sax euh, te dakkaluñ liggéey bi kenn du lijjanti seeni mbir mais il faut ñu arrêter. pour ñu dakkal seen mbir yéen ñi nga xam nag jot ngeen dem ngeen ba liggéey ba arrêté xam nga ci réew mu mel noonu laa la bëgg a wax quoi yéen ñi nga xam dem ngeen ba nga xam ne retraité ngeen donc arrêté ngeen li est-ce que yaakaar ngeen ni loolu gën ta tax ñu gën a ja ñàkk a jox yitte seen xeex bi parce que ginnaaw ñeneen ñiy xeex di liggéey pour ñu mën a am li ñu war a jot faaw ñu dakkal liggéey bi ne liggéeyatuñ ba état bi yëg ni mi ngi perte soog a taxaw ne. ma nga cay taxaw masta naag nag ku liggéeyut yéen fi mu toll nii est-ce que jàpp ngeen ni yëngu-yëngal yii nii nii euh, dina régler problème bi fi mu toll nii. bon c'est une question la. Mhm. xam nga sànq da nga ne bëgguñoo wéet effectivement bu ngeen ñu jàppalee ñu jël. waaw ah, ah, ah, parce que combat bi ñoo ko bokk. waaw ñoo ko bokk moo tax tey ñu ngi yéen a ñëw suba. est-ce que xam nga ne bu ñu yoroon te usine bu ñu mën a arrêté. wala mhm. ñu débarré ko taxaw na bu yàg taxaw na waaw loolu kay la bu ñu amoon société bu ñu mën a euh, grève mhm. dem na bu yàgg mhm. mais malheureusement dañu am mooy suñu baat reeteet yuuxu sifflé comme nag ay mag lañu tey rusu ñu ay seeni papa di génn ci mbedd mi di yuuxoo ko reeteet ak sifflé waaw ah, ñu dem ci mbedd mi rek reeteet reeteet sifflé yuuxu sifflé yoon suñuy ciblé reeteet ak yuuxu. mais mais mais xam nga yaa ngi wax yaa ngi wax ne lëkkaat bi lëkkaat bi ngeen war a amal fii. lëkkaat bi euh, ngeen war a amal fii. loolu lëkkaat boobu ngay gis. est-ce que yow fi mu toll nii. prépare ndax demande ngeen autorisation parce que bu ngeen amul autorisation est-ce que yéen a ngi xalaat ay lacrymogène gars yi léegi nga xam ne benn ñaar ñu. waaw mais mais gis nga Sa Ndiogou. gis nga Sa Ndiogou. waaw. Euh, ñun fi ñu toll nii dañoo dee ba pare. Ah. waaw IPRES rey nañu non rey nañu ba pare. Hmm. non c'est-à-dire que IPRES ñu rey ba pare. IPRES condition yi ñuy yi ñuy teg nii. waaw dafa ñaaw dans une république. yow waroo ko seetaan état waroo ko seetaan. keneen waroo ko seetaan man kay jëm ci ñaawlu ko laa moo tax ñu woo c'est-à-dire que daf ñu daf ñu escanté ba pare te fenn. Mhm. gis nga le 4 mars bi ñu woote nii. waaw képp kuy retraité di ma dégg tey ci Walfadjri. waaw ñëwuloo. waaw suba yat ba ñuy IPRES di dóor yow yaa leen ko may. Hmm. yaa leen ko jox. yaa leen ko jox ñu dóor ñu. waaw gis nga boo gisee ma fii. waaw. boo gisee ma bi fii dañu ne mur de lamentation Walfadjri moo gën. waaw parce que association mooy woote. wala wala waaw dafa am ay travaux foofu dañu njëkk a def le 14 janvier préfet bi ne du ci dal. waaw dafa am ay travaux. waaw bii nag. ñu rabattre fii. waaw fii lu ñu wax dem nañu ci chef euh, de bi. may nañu autorisation. waaw dem nañ ci ASC yor terrain bi. may nañu autorisation. yóbbu nañ ko préfecture bu parcelle déposé nañ ko. Ah. du marche du marche du dox ci tali. terrain de football la ñuy taxaw pare regroupement dox vingt mètres taxaw buntu war fajiri def suñu déclaration dem ñibbi loolu yombul. waaw loolu yomb na. loolu yombul. xam nga mag mag réew réew mi loolu loolu mën na fay jafe. ah mën na fay jafe tamit. ah mën na fay jafe. trouble à l'ordre public. waaw man non trouble amul trouble. parce que bu ngeen di jéggi tëli bi la ñuy wax trouble à waaw ñu bañ a jéggi. Hmm. mën nañoo bañ a jéggi ñu taxaw. waaw est-ce que terrain de football mën nañu tere nit ay nit taxaw fa. waaw waaw loolu de waruñu. kenn du ko tere. bu waaw léegi bu ñu ko teree li Omar wax bu ñu ko teree. bu ñu ko teree waaw. ndax da ngeen di dem tëddiwaat toog wala. non bu ñu ko teree du teree ñu ñëw ci terrain bi taxaw. di ngeen ah, ñu yoree suñuy maillot de football euh, euh, maillot euh, mën nañu sort suñu équipement taxaw dañuy battre. soo seen équipement ah, waaw waaw. waaw dem na. mënuñu ko tere sax c'est possible. <laughs> terrain de football bi. waaw ah. mënuñu ñu ko tere. terrain de football. waaw ñëw taxaw ko. def li ngay def dem ku la koy tere. kenn wuyu ah, ah, euh, Demba ku koy tere. réew de lu ne mën parce que nag. waaw ah. la xamal benn affaire gis nga fi ñu toll nii. waaw billaay man maa leen ko wax. nañu def attention. waaw wuti wutali point E. wuti li point yooyu e. pas yëpp groupe groupe groupe te bu boobaa du man maa koy organiser de. Hmm. pas ci seen bopp bés bu ñu féppoo fii. waaw benn jour la ñuy xëy ñoom ñëpp. ak hmm. CGI presse. Hmm. Euh, parce que foofu lañ toll. Mm-hmm. paa yi mënatuñu dem mënatuñu dikk gis nga bés bu ñu. Mhm. bu ñu demee ba. sa téléphone bi. <coughs> ils vont assiéger l'IPRES te loolu moo gën a bon. dëgg la Demba. xam nga temps yii xam nga yéen da ngeen a nekkoon fi nga xam ne moom moo di IPRES. waaw ngeen di dem IPRES di fa dem ba ci yàgg ñu jël leen yóbbuwaat leen ngeen nekk fa mu metti lool foofu tamit aussi ñu jógee fa ba pare jëlaat benn benn transfert d' argent dugal leen fa. ñu leen di jox seen waaw ñu leen di jox foofu seen xaar. waaw voilà ci KAPA ngeen waroon a dem. xam nga xam nga loolaa du nekk sànq Sadio Gouma ma ko. voilà Sa Ndiogou moom xam c'est-à-dire que gis nga quand on a créé l'histoire des. postes diggante nga am problème amee problème. Mhm. problème mu xaalis ah, ah, ah, te loolu sax dañuy ñaan yàlla. IPRES bañ a poste bañ a. ko poste mbaamu Covid. <laughs> Hmm. dañuy bañ ñu Covid ko mbaa ñu poste ko. Hmm. parce que IPRES fi ñu toll nii dara wóor ñu lan moo fa nekk. dëgg la hmm. rien n'est sûr. rien n'est sûr kon dañuy ñaan yàlla rek. a ñu bañ koo poste mbaa ñu Covid ko. a wax li daal poste mën na xam IPRES. Mm-hmm. maanaam ñu lekk li ñu dal ci Covid ba mën nañu dal ci IPRES. maanaam sàcc xaalis rien n'est épargné mm-hmm. ñun nag dañuy dañuy alerter dañuy sauver c'est pour sauver notre institution mon moom mu ñu ko ñun yéen ko moom. kon loola bi mu amee ñu ne poste dafa am euh, tension trésorerie mm-hmm. ñu génn leen fa coow li commencé yóbbu leen crédit agricole. ñenn ñi yóbbu leen ci Wave ak Orange Money. Uh-huh. ñu xëy arrêté ko ne kaay ngeen pointé wat ndax am na ñu dee am na ñoo xam ne xamuñu leen. ñu ñëwaat di buuxante ñenn ñi pointé boo pointé fii ñu ne la pointage bi baaxul def ñëwal suba. Oh, nga ñëw suba ñu ne la gannaaw ñëwal lëndi bale nga ñu ne la mm-hmm. am na ci ñoo xamante ne dañoo doxoo dox seen dañ koo paas ba ba jeex. Mm-hmm. la leen am na ñoo xam ne. waaw miet li li ñuy jot ni buñ leen ko xeebalee musibaam parce que ci la ñuy jënd seen ordonnance. dañu mm-hmm. yàkkam ci weer dee ba ñu jot ko dem jënd ci ordonnance ñii di ci fay courant ñii di ci fay ndox ñii di ci fay Euh, euh, euh, lu ñu lekk ak lu ñu naan. Mhm. ñenn ñi seen alimentation spéciale ay régime lañ am. Mhm. loolu boo téyee seen pension ba fi ma yoxu tey le premier mhm. weer bi passé ba tey am na ñoo xam seen pension génnagul. loolu est-ce que waru leen a nekk souci. Ah, gis nga bala ñuy kaas yéen yéen a waroon def investigation yi ba pare. ñooñu la bu la presse. ñun presse bi ci boppam. Ah. ñoo waroon njëkk a def investigation bi. Hmm. parce que lii yéen ko moom. ñan ñoo ko moom. yéen bu la jeunesse. luñ moom. bu ngeen màggatee. est-ce que du ngeen retiré. ah non attends non non attends. ah, ah, ah, ah loolu nga ñaan yàlla. kon yéen a ko moom. Mm-hmm. ñun ñun du yàggati yàggatul. ah léegi ñëw fekk lépp mm-hmm. père man d'accord naa foofu ci li nga wax parce que yéen ñi nga xam ne dem ngeen nag ba yenn âge yi waaw am na comme combat yoo xam ne bu ngeen koy jéem a def rek pour ñi nga xam ne ñu ngi ñëw la. très bien est-ce que tamit sànq dama dégg say biir wax nga ne yéen ñii ñëw mais est-ce tamit ñi nga xam ne tey ñu ngi lay seetaan nekk ay mag euh, un an wala deux ans dese leen pour ñu retraité ñu lay seetaan est-ce que bëgg xam ne kon ñooñu bu ñu tey euh, dimbale leen ci combat bi kon am ngeen daan bu yàgg day gën a neex ñooñu ñëpp ñëwee ñun taxut parce que parce que man lii di di wax que góor gi man gis naa ñu bari ñoo xam ni euh, fi mu toll nii yëguñu ni problème yi concerné na leen te ñoom ñu ngi ci biir ci biir euh, mbir mi. waaw wa ilaa jub jubal nañ mbir mi xam nga fi mu toll nii li di di. expliqué lu am solo ñi dese un ak ñoo ñëpp. dañu waroon a taxaw fi mu toll nii. fekk si leen. Ah. ci li nga xam ni mooy. Ah, xeex bi loolu loo ci mën. mais xam nga c'est que ñi c'est que bàyyi tamit ñoom du ñu neex a jàppale xam nga lu tax. Mm-hmm. parce que ñoom ñi leen di jàppale ñoo bariwut. même seen soxna yi sax du ñu leen wóolu di leen jàppale parce que mën nga leen jàppale passion bi ñoo rek ñu ñu ñu ñu. ñu wut ñu wut takkoo non non xam naa li ma wax xam nga moo tax fu mu toll même soxna yi dañ naan. non non nii mu mel baax na nii yëf yi mel mm-hmm. eh, boo demee ba liggéey ba retraité. waaw pension bi nga am. boo jaarul woon doo jéggi ci pension bi ngay am sax. boo bu fekkoon jaaroo ci yoon. non waxuma yoon de. non attends attends rek. la ngay am waaw. retraité bi gën a dee boo demee këram am na lu muy liggéey biir këram. dëgg la <laughs> soit mu ngi fay ndox. wala mu ngi fay courant. wala moom ci boppam am na ordonnance boo xam ne weer bu jot bu ko jëndul day dee. kon pension mais pension pour loolu la. waa mais comprendre li ma la wax. du affaire u ñaare la ñetteel ña affaire u ñaare la ñetteel. ah kay non léeg-léeg am na ci. am na ci ma ah, ah, góor gi. <laughs> mais am na loo mën a. père léegi léegi man dafa am benn affaire bu amoon ah. mooy kat mooy. te am na xale yoo xam ne ay pa xale yoo xam ne ay pa ay pa lañ bëgg am na xale yoo xam ne pa leen gënal xale yi nga bëgg pa man sama classe bi dèjà ya ñu may Sénégal ak may dégg sama classe bi dara baaxut waaw c'est bien ci digre loo koy doyee yow yaa ngi virage léegi nga ñibbi non non non non non non man combat bi dama koy yenu parce que. Ah, boo ko yenuwul xam boo ko yenuwul xam. ah oui yenu ko. dafa am benn affaire bu maanaam yéen a ngi woote pour le cadre. waaw mais da nga war retraité yi kase alors que fii y a les partis politiques tey jii ku mel ne tey. ku ci ñëw épargne wuñ kenn ku ñëw ci affaire bi jot nañ la. yéen a ngi invité Sonko les sociétés la société civile les activistes les partis politiques. Hmm. ku ñëw. baax na ànduñoo kenn ku ñëw ñu ànd bu bu la neexee nga ñëw. Hmm. ñoom ñëpp a ko ku bëgg ñëw ñëw. Ah, waaw eh. parce que c' est l' c' est l' affaire de la république. dëgg la. c' est l' de yëpp affaire bi c' est sérieux da c' est très nguur mais nguur gi dafa defoon ay jéego père. ci la nguur gi. martialisation bi xam nga waxoon nañ ci. waaw may ma beneen bu topp aussi tamit mooy li jëm ci kii nu mu tudd IPRES ak caisse de social sociale ñu boole leen mutualiser leen. gis nga c' une très bonne question. Ouais. bi Macky Sall son excellence le président Macky mm-hmm. am na conseil de ministres semaine ba la yaakaar naa ne ci la wax problème mutualisation. Mm-hmm. c' est important. Mm-hmm. gis nga balay IPRES di yàqu. nañ ko boole FNR. yokk pension wu retraité yi. yokk seen doole. di leen faj le 27 28 comme FNR ñu dem fay suñu xaalis bu ku feebar dem hôpital principal ñu faj la. waaye bala ñuy bàyyi loxo yi nga xamante ne c'est des agents non assermentés ñuy tibb xaalisu IPRES bi di ko lekk. ñooñoo ñan. xamoo ñan la. Ah, xaw ma ña ko ji diriger. mooy kan wóoru ña ko diriger <laughs> dara wóoru. dalu saxal. de nee naa la bala ñu koy poste wala ñu ko bit ko. Mm-hmm. nañu jël IPRES te def le toilettage. mais wér gu wér-gu-yaram bi laa yoo xam ne tey boo xam bu dee xale yi dañuy am centre de pédiatrie. di am na dëkk yoo xam ne am centre de gériatrie pour mag ñi. Mhm. waaw loolu am na Sénégal. xam nga da ma laaj question. Mhm. ma la ciy répondre pare gu ma ca. Mhm. muy la mutualisation. c'est-à-dire une caisse nationale de retraite. président de la république. bu fekkente ne daa dem ba di ci jublu. ñun arbos danañ ko ci jàppale. dëgg la mais waxoon na. ñun association des retraités boobu orphelin du Sénégal. danañ ko c'est vrai que nag ñaareel yi nga xamante ne septième day toog ci presque duñ ko nangu waaye ko jàppale jusqu'au bout. parce que loolu moo ñu ci génne sonn nañu. sonn nañu. ticket resto yi nag. ah ticket resto yi. ticket restaurant yi amoon fële coow. waaw ticket restaurant yi de gis nga ko benn ponkolom avocat bu taxaw sama jabar bokku ci. kan la waa jooju du ko tudd. ki doon entre ak télé bi. du ma ko tudd. ah ah mu ngi woon ci kanamu yoon bi. dégg nga loolu am na ñooñu ci jàpp am na ponkol bu toog ne sama jabar bokk ci. Hmm. mais jabar ji woon nañ ko. mais jabar ji même bu ñu ko wooyee. moom léegi day weddi de bu kii day. ja avocat ah, bi yoo xam ne nga ragal avocat bi. ah da nga ragal avocat bi. déedéet du ragal. kooku hmm. oh, man nee sax dañ ko ëpp doole xam nga ko ëpp doole. Hmm. kooku bala muy génn xaalis am na ñu ko signé ca kaw. mais loolu lu mu demee explique ñu ko. loolu xaw nga ko de. <laughs> non non Cheikh Bara moo njëkkoon toog fii wax. waaw moo wax ci affaire ticket resto nañ jabaru diw ak. cest à la. Ah. ay ay immeuble yu ñu doon jël ak c'est pas bon mu yegg cinq cent soixante douze millions. Hmm. ñu bind ko ci journal As. Hmm. bind ko ci journal Le a hmm. Mamadou Sy Mbengue moo defoon audit interne. pas audit cabinet privé audit interne. benn année deux mille dix huit. moo gën a loolu. du cabinet privé des na deux mille seize des na deux mille dix sept des na deux mille vingt des na deux mille vingt et un. yooyu yëpp dañ ko war a auditer xool la fa génn lan la. avocat bi daal laa bëgg a wax mooy kan. avocat bi xaw ma ko. xamoo ko. père yow. waaye yéen a ko gën a ma ko ah, eh. na ci télé sama jabar bokk ci. waaw te ko ci. ah te yoon taxaloon ko am na ñu ci jàpp sax. Hmm. y a qui sont a qui ont fui. Ah, moom jabaram defe naa yoon setal na ko. Euh, après bon je sais pas. waaw kon ah. bokku ci ñun daal xam nga lan lañ soxla. xam nga ñun lan lañ soxla. Hmm. ku lekk xaalisu IPRES na ko goqi. waaw xam nga nag sëñ bi nag daana xamal benn affaire. ah muy lan Sénégal li fi am dafa yomb. Mm-hmm. booy dañu naan jar na ko jaru ko de dañu naan milliard bi bu ma ko jëlee. Mm. ñu tëj ma fukki at génn ma ma teg ilaa yombi diini. Mm. waaw waaw waaw. amoon duñ ci jom amoon ci xam nga lu ñu war def. crime. waaw peine de mort. waaw mais seen alal la. waaw dëgg la de. li nga gis nga bala ñu lay atte dañ lay tëj d'abord dix ans. Mm-hmm. mandat dépôt. nañ ko wootee assemblée loolu moo gën. nañ criminal affaire sàmm jikko yeeg ay góor jigéen ak yi. am na solo de. Mm. waaye lii lañ war a lijjanti. xa bi ngeen walaay da ngeen a sonn. alors milliard buñ ko mm. fekkante man bu ma waree ne man bu ma jëlee dix milliards. waaw. ñu tëj ma ci kaso bi. Mm-hmm. mais samay njaboot samay askan ba ilaa yow mi diini c'est fini tedd nañu. waaw. je sors je deviens milliardaire. yow na nga ko criminaliser loolu nga bëgg. Mm-hmm. criminaliser. Mm-hmm. ànd naa ci loolu ku ci sàcc milliards ñu tëj la fukki at lay atte. waaw léegi ñu bàyyi. bu ñu la attee sax rey la faatu. buñ la Chine noonu la def mm-hmm. buñ la léegi sàcc gi parce que nag di xew ci réew mi baaxuloon ah. dañu naan jar na ko jaru ko de mm-hmm. bu ma jëlee milliards mbaa milliards tedd i laa yow mitin mais loolu dafa war a jeex dans ce pays là mais a ah. bi comme ni ko de gestion ni réew mi doxee non système de gestion moo di loolu mooy détournement la ah, dafa war a changé nag dafa war a changé kay dafa war a changé ñu fii ci terrain bi da ngeen sol ay maillot taxaw fa. no loolu waxin la rek. <laughs> mais mais léegi léegi dañuy tëj. jeex na daf ki ñëw pour ñaar retraité boobu ak. ak woote orphelin yi waaw boobu ak orphelin yi lan ngay xam nga man ñun lan lañ bëgg. waaw ah. d' abord les textes qui datent de 1958. léegi foofu tëjal nañ ko changé. Uh-huh. textes yoo xam ne temps wu dëggoon la. 1958 nañ ko changé. tubaab ya ko defoon sax gis nga leen chaque chaque un mois ñu changé. waaw textes yooyu moo ñu tànc conseil d' administration bi. gis nga ko bois bois à euh, euh, euh, titre d' observateur ña fa nekk ñaar ñooña mhm. amuñu bois délibératif ñu li ñu soxla mooy juróomi nit ci retraité ñu dugal leen conseil d' administration yu xool seen alal parce que ña fa nekk ñoo leen di mhm. ah. beneen bi mooy veuve yi nga xamante ne ak pension minimale bi nga xamante ne. Mhm. dañ leen a yóbbu dañ leen a Macky Sall bi mu yokkee 10 pour cent. am na ci ñoo xamante ne benn wàllu retraité. juróom benn junni retraité yoo xam ne dañu am ci pension minimale yi ba tey seen 10 pour cent jotuñu ko te président moo ne nañ ko jox ñëpp faale wuñ ko wuñu le président de la république day joxe sax léegi day joxe consigne sax kenn du ko respecté nu mm-hmm. xoolaat boppam mm-hmm. ñi ko topp di ko ñoo ñooñu ñoo toppoon Senghor di ko riitit ba mu daanu mm-hmm. topp Abdou Diouf di ko riitit ba mu daanu ñu topp Ablaye Wade ba mu daanu danañ ko riitit ba mu daanu ñu teg ko fa dem seet keneen paa yi sonn nañu nag jublu seen affaire. Mhm. il n'a qu'à régler le problème des vieux. dëgg la moom ci boppam la jël le dossier de l'IPRES en main mën na ko régler keneen ku leen ne mën na ko régler day wax rek mhm. ñun nag d'accord nañ ci la mutualisation des deux institutions FNR IPRES heure bu ci décidé ñun danañ ko jàppale waaye na fekk mu yokk pension yi ba mu duun. jërëjëf ba mu duun mettre ko dans de bonnes conditions suba bu ngeen ñëwee fekk bi dara. Mhm. jërëjëf. loolu ah, message bu la di wax nag dernier mot. Hmm. le 4 mars. incha allah. nañ ñëpp ñëw ci place terrain bi terrain xar yàlla. ban heure 9h du matin. 9h da ngeen dëkk ba pare. non doon nañ dëkki ñun dañu. da ngeen fajaru waa suñu nelaw jeex na. ñun suñu nelaw jeex na ñun jeexal nañu ay nelaw. waaw waaw 9h incha allah jërëjëf waaw wax ngeen ma fi ay ñetteel ak yoon xamul. père Demba Wale Diop <laughs> ah. le 4 mars. le 4 na ñëpp ñëw. Mm. ku yore course ak ñëpp ku ñëwul. yet wa ñuy yet wa ñuy Ibrahima Dóor yaa yaa leen ko abal. waaw jërëjëf maa yore communication. wa yaa leen ko abal. Mm. jërëjëf. jërëjëf Diop wax ji de. waaw bu baax a baax fii fii la ñuy ñëw taxaw. waaw fii ci seen nga jël say lacrymogène wala nga jël say yet. waaw nañ nga day paay nañ leen rey. <laughs>